mais pas pour yàq temps nii pour bëggal gars yi. message à lancer à l'endroit de la famille de la lutte <laughs> macha allah am na solo ah mais di bëggee ñëpp rek. di mm. siyaar ñëpp. Mm. di wax euh, làmb. Mm. nañu gën a ñoŋal communication bi. waaw bàyyi commun euh, aspect négatif yi ñu koy souligner man loolu mooy sama message fu ma toll moom lay wax na ñuy xool yu baax yi ak tànk kanam yi ñu koy wax. bien vrai que nag. Euh, xaw ma nu ñu koy waxee critique xaw ma lan. loolu dafa baax. Hmm. wax di critiquer parfois ñu xool yenn détails yi nga xam ne baaxul ñu xoolaat ko yooyu. ay critiques yu objectif. merci beaucoup yu positif. Hmm. mais kanta lii baaxul lii baaxul man doxuma ci loolu. làmb am na ay tànku kanam nañ ñaan yàlla tànk kanam yi gën a jëm kanam. macha allah am na am am na solo Garga Mbossé réew mi Sénégal lan nga ciy wax. damay waxtaan sama benn copain barki démb euh, animateur la ñuy waxtaan lu yàgg téléphone. mu ne ma danga nga war a génn da war a def sortie nangam nangam sa genre yi bu lu mel ni xewee porteur de voix lañ dañuy wax ma ne ko da bëgg ñu saaga ma. Hmm. ndax ku dëkk ci Sénégal xam ni réew mi mel ak fi réew mi toll jeune bu bëgg a tekki am ay responsabilité am vision say waajur yaakaar la nga gis say nawle di def loo xam ne gënuñ la doon jàmbaar gënuñ la apte pour def ko yow mënoo ko def dafa métti. Hmm. nga war a jaayante sa life. Mm-hmm. pour dem changer sa vie ak vie wu ñu yaakaar ci yow. dëgg la te jàpp nga ni xëy na boo génnul réew mi du baax. waaw foofu la problème bi commencé. pourquoi nit ñi war a jàpp ni buñ ñu génn réew mi bu baax. kon ñun ni ñu diriger war nañoo arriéraat xool ni war nañuy def lu tax ndaw yi teg seen bët fii bañ ko teg feneen. Mm-hmm. man de du ma génn naan kenn li ngeen def du yoon parce que fi ñu toll da ngay jéem a nekk ci place boobu yow pour xam encouragé wu ma ko nag. mais nañu xool nu ñuy waxee ak ñoom jéem leen a conscientiser parce que lekkitu neen naxuti béy. naxuti béy affaire bi dafa xëy ba xëyee xëy ba éclaté ñu soog ci jot. mais dafa am fu ñu jóge fu sori yow am na loo ci xam. Mm. dëkk bi nga dëkk. dëgg la. ñi ngi wax ay waxu licence de pêche. ñi ngi wax mm. ay waxu leneen ak leneen mais du loolu kese. parce que ñi mm. ciy dee ñu ci bëri duñu ay mol. duñu ay mol de. ñun dañu war a fexe dañu war fexe nu ñu amee yaakaar ci suñu réew ñun. dëgg la parce que yaakaar rek la nit ñi di demee. dëgg la bu ñu fi yaakaar dinañ toog message bi am na solo ça mal au cœur. yàlla xam na ni jour bu ma seetaanee vidéo bi gaal bu tàkk bi dama tëdd sama néeg jooy. billaahi des frères ma baal sax maa ngi waat. c'est vrai. jour boobu ñu xool sama statut ñu bari ci guddi gi dañ ma woo. parce que dama am lu ma metti xool ko ci sama bopp da ngay xool Modou Mbaye yow ni nga mel ci sa yaay. Euh. man ma mel ko keneen mel ko keneen mel ko nga xëy di xool sa yaay. la moyenne lu mënul ñàkk mënul ñàkk mooy dund lekk am na ñoom da leen jafe yow nga xëy war a lijjanti loolu doon góor mënoo ko lijjanti mais da koy wuti noo ko mën a amee nekkatul sax ay affaire naxante ça devient très sérieux te dañ ci war a jóg man ñi ma xam ñu ci dee duñ jeex j'ai connu pas mal de nit yoo xam ne ñi dañ fi bàyyi seen soxna dem des ci xam nga li ma la wax. lu metti la war nañ si jóg. incha am na solo ah message bu solo la man daf ma sax xaw a daf ma xaw a bu baax a baax a baax c'est un peu c'est dur ñu gis suñu ay frères di dem nii ci géej gi ñàkk seen ay bakkan te li ko waral mooy dund bu métti boo xamante ne nii moom moo nekk dans notre pays. te dund boo xamante ne ni yow boo nekkee xale moom ngay dund di màgg di ko dund di jëm mag di ko dund di takk jabar di ko dund am ay doom di ko dund ba nar a deewaalee noonu c'est dur à quand les jeunes vont être vont avoir sa qu'ils veulent à quand la xale yu Sénégal di toog am liggéey à quand la sunu ay gouvernement di bàyyi xel ndaw Sénégal à quand la sunu ay njiit di ñu gën a fonk di ñu gën a teg place bi nu moom teg ñu place bi nu moom doonul rek bu élection jotee ngeen ñëw utiliser xale yi ñu jug way tëb def lu ne sol ay t jox leen trois mille deux mille francs ñu dem du loolu ku lay jox jën jàngal ko nu ñuy nappee moo ko gën te ni nappee mooy ñu créer ay emploi dans notre pays. mbokki Bantamba am na élément bu am solo am na reportage bu am solo boo xamante ne ni defaloon nañ leen ko lu jëm ci mbër yi nga xamante nii. lu jëm ci liggéeyu mbër lu mbër war liggéey mbokk yi loolu anamoo lañ ci àndal waa anamoo muy loo xamante ne ni lu am solo la Bantamba